mbokki internet yéen yi nga xamante ni baaxoo di suivre seen seen youtube boobu di soppe Farokh TV tey ñu teewalaat loolu leen euh, foofu li ci Koki Saloum ci gàmmu gi nga xamante ni ñu ngi ko baaxoo di amal at bu nekk ren di édition 2023 ñu fas yéene dëgtal leen ko kem niñ leen ko daan dëgtalee fa la yaakaar naa namoon ngeen ñu ñun tamit namoon nañ leen géej nañ lool ci nga xamante ni mooy internet bi gën ñuy def ay activité ñu jëm ci internet bi waaye ànd ak loolu lépp ñu ngi la ci jégglu yéen ñi nga xamante ni yéen ci yéen ñi faral di topp ci suñuy activité yëpp kon lañ koy jégalu ci xaar gi nga xamante ni ñu doon yi nga xamante ni moo ngi suñu kanam ren euh, ñu ngi fii ci Koki ci gàmmu gi nga xamante ni ñu ngi koy amal at bu nekk ren di édition 2023 yemook 25 décembre incha allah ñu fas yéene dëgtal leen ko joxaat leen rendez-vous beneen 31 décembre mu ñu koy amalee fële ci Mabo di am solo gàmmu gu nga xamante ni ay ndaanaan ñoo koy def tabarkalla ñu leen ci jox euh, dig daje foofu lay doon incha allah rendez-vous bi bu am na yeneen programme yi ne ci kanam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni tabarkàlla was xeen nañ ànd ci ak yéen saa nekk Sukaro TV yi moom seen télé la seen seen la yéen ñi nga xam ne si baaxoo dañuy topp suñuy activité kon laajte teen ñu noonu la ñuy àndee ak yéen saa su nekk rek ngeen ngeen kontaan seen i mooy suñu mbégte saa su nekk su ngeen kontaan rek kontaan nañu kon ren fii la ci gàmmu gi nga xamante ni mooy gàmmu fokk sàllum ay naanaan ñoo ngi ñëw ci kanam tabarkàlla jàngkat la mag waaye tamit yu mag bu ko kenn wutee na ngeen ko xaar tabarkalla xam da ngeen dégg lu neex ngeen jëf Mm-hmm.